waaw final moom instant yi daanaka lu si des bëreetul xam nga préparé nañ ko aussi nuñ ko war a mooy physiquement mentalement moralement lépp pare nañ psychologiquement tamit instant bii nii supporters yi ñoo nekk pression mais ñun joueurs yi xam nañ lu ñu war quoi ñoom instant yi ñoom instant bi la match supporters yi quoi mais ñun bu ñu àggee biir terrain moo suñu match quoi. te ñu ngi ñu ngi koy ñu ngi si demee xel bu sell quoi xam nañ tam mas bu métti la ak lu mu nekk tam mas dëkkandoo muy ASC Teranga te xamante nañ bu baax quoi voilà mais ñu ngi ñaan yàlla may ñu si ndam quoi. bu ko raw mooy dellu si parce que final la benn match la quoi gan jël la aussi dañuy ñëw ñun adversaire bi duñ ko may dara te lu ñu may ñu jël. waaw oui peut waaw boobu noonu boobu mun naa ni sax boobu nekkul woon équipe bi quoi. je pense parce que match boobu noonu bëri woon nañ ay manquement aussi te équipe bi ñoom jàppoon nañ seen esprit kii nañ ba pare qualifié woon nañ ba pare en plus boobu noonu matuñu woon huit lañ woon dañoo sélectionné woon ñaari booy yoo xamante ni football woon nañ quatre-vingt-dix minutes match quinze heures ñu yokk leen suñu joueurs yu bëri dañoo absent woon boobu mun naa ne équipe B lañ te kon ba ñu Teranga di gagné 2-0. waaw ñoom instant bi ñoom loolu lañ jàpp nag quoi loolu lañ jàpp seen xel mais bii dina uteeg boobu. waaw bu baax a baax a baax bu baax a baax a baax instant yi ñoom na leen bàyyi ak wax ji rek. waa Teranga lu ma leen wax mooy di ngeen football match bu métti di ngeen daj lu métti bu neexee suñu bonam da leen di gañ si fepp nag ak ci lépp ci nu mu gën a méttee nag yëfu góor la te gën a bëgg moo ko jël dóor fayu dañu aal xiir bi ñu fayu par force par A ou par B amul sax négocier amul lenn lu ñuy négocier ndam rek loolu rek la ñu gis après match bi nañ dajalewaat incha allah bu yàlla defee ñu gagné teranga xam nga victoire bu leer nañ bu amul benn werante parce que ñun dañoo bëri noonu quoi waaw mais merci quoi ak supporters yi tamit ñun amuñ seen fay quoi xam nga commencé ko ci Ela Ndiaye xam nga moom lépp la ay ñoom paate te jii ku lim da ngay jum quoi gis neen seen taxawaay taxawaay nañ équipe bi taxawaay bu rafet quoi. waaw ñun nag lenn kese la leen ameel tey muy jëm jëli ndam li suñu mu gën a gaaw ñëw indi ko quoi parce que supporters yi dañoo yónni yaa xam te ñu waaw merci beaucoup ah